alhamdulilah barakallahu fikum allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad mbokki taalibe yi xam naa noo ngi jeexal rek ci de maanaam gàmmo day loo xam ni jotaay bi boo jéego liñ ci yublu dara lu may xam ni gàmmo day mbirum sëñ Tuubaa maanaam sëñ Tuubaa réew mii nii ñu ne moo fi njëkk a tàmbalee gàdd gàmmo am Cheikh Sidil Hadji Malick di di waaju baax dëkk ca Tiwaawoon nga xam ne boo dem waa réew mi dañuy wax ne xamuñu ku ko njëkk gàmmo ci woote ko ñoom nag boo gisee waa këram dañuy wax ne Sidi Hadj Malick mi ngi ko njëkk a woo mi ngi ko njëkk a tàmbali ci mille huit cent quatre-vingt-quinze nga xam ne ke la tàmbali di ko def ak waa këram mille neuf cent deux nag ke la ko woote ñu di ko daje ca Tiwaawoon waaye loolu da ngay seet ne kon Sëñ Tuubaa ba mu ko tàmbalee def kon kenn defagu ko woon ndax suñu tubaab di wax ne ahyaytu mawlida nabi min assasine assasine mooy mille trois cent un ci hijriya tolloog mille huit cent quatre vingt deux mille huit cent quatre vingt deux xam nga moo jiitu mille huit cent quatre vingt quinze kon nag day war ne suñu tubaabam ndax assasine mooy ba fi maam maam Maamoor Anta Sali jógee ca déwén sa rek la ko tàmbalee moom sëñ maanaam diiru Maamoor Anta Sali fi ne booba dawul yëngal dara ndax warmaal Mamour Abdou Sall waaye ba mu fa jógee rek ci la tàmbali di ko màggal moom gàmm gi ci déwén sa rek ah yetu mawlidan nabi min assasine loolu kon day firndeel ne Sëñ Tuubaa ci réew mi nu ne moom fi njëkk a tàmbalee def li ñuy wax gàmm da yëmut ci loolu sax da wax ne malaktu mawlidan nabi min assasine kitabati wa qaadani min jamsasi masalan assasine laa tàmbali woon di di bind sama mbind mépp ma jëmale ko ci maanaam maanaam moom loo ko mawlidul muxtar muxtar mooy mooy mooy gàmmo lu may bind rek jëmale ko ci maanaam at mu ne danaa def at mu ne xam nga danaa bind ay xasida ci gàmmo gàmm gu ne ak xasida yam ciy bind loolu nag da wax ne ci assasine laa ko tàmbaloon loolu lépp nag day wane ne kon moom naka jekk moo ko moo maanaam gàmm yëfi Sëñ Tuubaa maanaam nun murit na gis naa ne maanaam kenn war na ëpp fulla ci la sëñ tubaa bëggoon kenn war na ëpp fulla ci di ko dundal moo tax gàmmo lu ma tafonk la bu ko kenn bàyyee mbiri tijaan du mbiri tijaan tijaan moomu ko te sëñ ba mu koy dundal ba tijaan tamale guñ ko dundal kon mbirum murit la murit yi ba bopp ñoom kenn war leen ci jiitu loolu moo indi maanaam maanaam maanaam gis nga dëkki murit yëpp dañ ko fay dundal ci jamono sëñ tubaa la tàmbaloon sëñ tubaa gàmmo dañuy wax ne daana ci sax takk ndigam di jànk si da ci njëlbeen wax nañ loolu bu masaa ñëw itam dañuy wax ne day bëgg moom weer wi rek moom weer wi la la dundal sax na sëñ Tuubaa day wax ne ah maanaam daani ila ihyaayi da shahri kawnuhu li xayri wala zarfan xawa kulla sudadi maanaam weer wi ci boppam lay dundal li tax ma koy dundal mooy dafa nekk ndab loo xam ne ci la yonte bi wàcc maanaam ci la yonte bi feeñ moom weer wi bu masaa ñëw it ni ma ko waxee démb ak barki démb yëpp dara wax ne man bu weer wi ñëwee sama tàyyel jeena sama wér itam wér na yaa xayra shahrin jaabi xayri mursali adhabta qataan maradi wa kasali loolu ay yoon la ko wax am na boo xam ne ca àgg ci wax ne anni mahawta kasali wa wajali wa xayrati daa ismati min xajali maanaam tàyyeel ak njàqareeg jaaxleeg ngëlëmte yooyu yëpp bu weeru ñëwee day daal di jeex ci man wax ne ne lu fi ne nit ki nit ñu bari dañ daa def buñ mësaa bëgg dara ci sëñ bi dañuy bàyyi ba weeru gàmmo jot ñu sàkko ci moom ndax weeru gàmmo sëñ bi daw ci delloo ab ab laaj loo ko laaj mu jox la buñ mësaa di gàmmo ci bisu gàmmo itam moom ci boppam léeg-léeg moo daa jël xéewal yi di ko indil ñi ñi ñi jàng moom ci boppam moo ko daal séddale boobu da ci daa ànd ak cawarte gu mat sëkk ak farlu gu mat sëkk ak mbégte moo xam ni da ko daax moom daa ne raxabtu taaziman bi shahril muntaqa maanaam xasir goo xam ne foofu la tàmbalee basharta yaa rabiu kulla di tuqa yaa darfa nuurin wastifain wa intiqa suñ tubaa dara dara àgg sax di wax ne moom maanaam weeru gàmmo we yeneen weer yi ci des yëpp lu ci waay am weer weer weer yi ci des lu ci weneen weer am weeru gàmmo la ko jox maanaam xasida gi mu tënkee fa man saa fal yuumin xam gis nga da da da koo da da koo toppe weer yëpp kenn ku ne mu wax ne gàmmo defal na ko nangam far farraha mawlidu nabi muharrama nan la ko tàmbee mallaka mawlidu nabi safara busharatan xaalidatan lam tukfara noonu la ko toppee nafaa mawlidu nabi rabia al awali sharrafa mawlidu nabi rabia al axiri noonu la ko toppee aata nabi busharatan jumada gadat biha bi fadlihi imada faaza bi mawlidi nabi rajabu fawzan bihi qaadal ilayhi al ajabu san foofu rajab dafa wax ne kiimaan gi ci am ci mawlid nabi la ko jëlee kiimaan gi am ci rajab mooy isra wal mi'raj bokk na ci kiimaan bokk xaw ma gudd suñ Maodo mu wax ne nangam la jublu waaye kiimaan yi am ci rajab xam nga bari na bokk na ci isra wal mi'raj noonu la ko toppee li Moustapha nuurun ada Chaabana ba ci yaquudu mawlidu nabi li ramadan fadlan aziman qad yumi qad yudimul fayadan waajaha mawlidu nabi shawala bima bihi qaada lahu nawaala mawlidu ahmada ada dal xiada ida ida atan fiihi badat wa baxda nawara mawlidu nabi dal xijja gis nga weer yëpp dañ ko day wax ne leer gi nekk ci yow njariñ li nekk ci yow xéewal gi nekk ci yow teraanga gi nekk ci yow ak mbégte mi nekk ci yeneen weer yeeg leer yëpp ci mawlidu nabi lañ ko tànk mooy sangu weer yi daa sax ne shahru rasulillahi bahjatu shuhur maanaam weeru yonte bi mooy taarub yeneen weer yi maanaam yeneen weer yi bu kenn amee yenn daraja ji ñuy wax wala taal bu nit ñi gis yonent bi weer wee ko ko jox chahru rasulillahi bahjatu rasul faaqa rabiul awali shuhura bi mawlidi alladi bada mashhura maanaam moo kawee weer yëpp loolu loolu la daal suñ too foofu la foofu la foofu la foofu la ko tax wax naa dem itam lu bari ci may yoo xam ne suñ bi da ko daa wax wax ne ci la ma dikkale ci weer wi loolu wax na ci lu bare bare bare bare bare bari wax na ne bay di ma wax démb wax ne mboolem li may junj ci sama téere yi mi ngi ma dikkale ci mawlidu Mustafa alayhi salaatu wasalaam loolu wax na wax na awsala li taazimu mawlidil bashir jumlata ma fi kutubi lahu usir mi ngi wax ci xasidam lu mu tudde yowmu sulaasa fi awaili ramadan ramadan wax ne awsala li taazimu mawlidil bashir jumlata ma fi kutubi lahu usir mboolem li may junj sama téere yi ni yàllaa ngi ma ko joxe ci màggal gi may màggale mawlidu nabi yooyu wax na ci lu bare bare bare bari moo fees moo fees téere rawatina boo dee boo dee yër wala ngay jàng ma diwaan bi nga xam ne ci lañ tënk li sëñ bi wax ci weer yi maanaam diwaan bi nga xam ne moom la sëñ bi teg ci weer yeeg bis yi da nga gis lu bare bari ci ay mbir yoo xam ne suñ wax na ko jublu ci kon gàmm moom mbirum sëñ Tuubaa la moo xam ne murit bu am fulla doo ko bàyyi kenn ndax Sëñ Tuubaa moom yonent bi ci boobu da ko jox kenn maa ngi fàtte wax sax ne fii ne bari na ko sëriñ yoo xam ne dañu ko tënkee lii rab rabiul awwal rabi rabiul awwal lii wala lii rabiul awwal xasida yoo xam noonu la ko tënkee mooy weeru gàmmu maa ko moom Sëñ Tuubaa itam xam ngeen ne moom ni ma ko waxee rek. doon ko bëgg yonente bi alayhi salaatu salaam bëgg yonente bi dees ko ci dab loolu laay wax te dama ci ñime bu wér-wér maanaam loolu mooy li wér Sëñ Tuubaa ak dundam gépp da ko jeexal ci bëgg yonente bi alayhi salaatu salaam boo dem coono yi ko dab yëpp bëgg yonente bee ko ko teg loolu moom coom moo ko wax sax mu wax ne xusuur yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhu lmadixu qasir maanaam mat xil ladi anhu ma di xasiru mooy tagg yonente bi ak di ko liggéeyal ci la ko coono yëpp daje dabe gis nga dundam mos ci am mos ci am jàmm moom sëñ bi maamoon ànd sali nelawee radiallahu anhu xam nga yee wax na ni foofu at ak genn wàll dafa def ñëw fii Mbakke Mbakke moom it dañuy wax ñenn wax ne ñaari at dafa def am ñu ne ñu wax yeneen dat waaye yeggu fa lu mën a xaw dem Daaru Salaam Daaru Salaam moom it yeggu fa jóge fa ñëw Touba ginnaaw bi mu jógee Touba xam nga ci la dem Mbàkke bari diir boobu bëpp yaakaar na ñenn ñi dañuy wax ne juróom-ñaari at am ñu wax lu ko waaye yàggul lu mën a xaw su ñu demee Mbàkke bari xam nga fa la ko tubaab yi jàpp maanaam Maodo Anta dafa jógee at yu néew rek tubaab yi génne ko réew mi fee mu nekkoon ca géej ga juróom-ñaari at la fa dem ak lu topp ñëw ci réew mi ñu indiwaat ko fi amu fi juróom benn weer ñu yóbbuwaat ko Mauritanie Mauritanie itam mu def fa ñeenti at yoo xam ne waa Mauritanie ci moom Cheikh Sidiye moo mujj bind tubaab bi ne leen dimbali leen ko ngir yàlla ngeen yóbbu ko Sénégal moom fii mu ne maanaam jaww ji baaxut ci moom boo dafaa nekk di fa jànkonte xeeti wéradi yoo xam ne kenn mën na ko misaal aussi wax mu Cheikh Sidiye ci moom moo ko bind man maa ngi lettre am lettre bi Cheikh Sidiye amoon man am naa ko ak mbir yu bëri bëri ci moom moo xam ne Cheikh Sidiye wàkk Cheikh Sidiye loolu it ndam la ci ñoom wax doon nañ ko wax dañuy wax ne si booba Cheikh Sidiye moo bind lettre tubaab bi ñu leen dimbali leen ko ngeen maanaam yóbbu leen ko Sénégal bi tubaab yi bañ ko fa jëlee itam gis nga yóbbu indiwuñ ko Sénégal fañ ko yóbbu mooy Jolof suñu wax Ceyeen nga xam ne ba léegi si boo fay dem da nga am jafe-jafe foofa itam ba mu fa nekkee gis nga ci jafe-jafe yu métti la fa nekkoon mooy bis bu ne juróom benn nit lañ mayoon ñu ñu gis ko ci bis bu bis bu ne te bis bu ne itam mboolem la mu fa nekkoon tubaab yi si ne ñu ngi ci ab seen seen archive yi dañ ko daa xam di ko topp ku waxanteel ñu xam lu mu la wax foofu ba mu fa demee juróomi at ci liñ ko yóbbu njaareem def ko li ñuy wax résidence surveillée nga xam ne ma am na nekk na fukki at juróom yoo xam ne mënut a dem fenn te Touba Touba nga xam ne suñ tubaab Touba daa wax ne moo gënal ci dëkk yëpp gis nga bu nekkee ci tukki bi itam maanaam bu ma saa di ñaan dëpp gis nga Touba lay wax ilahi ila Touba ila Touba ya xut ni wa salliman mi nga nga xam ne Touba maanaam waxtu ne moom la moom la ñaan ni ñu dela ko mooy dëkk bi ko gënaloon ci dëkk yi tubaab bi nag xam loolu tax ñu xañ ko ko wax nañ ne mas nañ ñëw Touba ba àgg fii ci xuru Mbàkke ñu dëpp ko maanaam sëñ bi xam nga dawut tàggu tubaab bi moom te tubaab bi dañoo bëggoon buy dem seen tàggu leen te sëñ bi fa su dee leen tàgg moo tax moo tax ñoom it suñu koy ne monsieur bàyyi bàyyi muy dem seen mas naa génn bëgg a ñëw Touba ba àgg ci xuru Mbàkke la ñu wax ñu dëpp ko ay gendarme ko dab mbokkam mu mbokk lépp wax na ne jamono yooyu la la nelaw muy ñu ko mu dem ci denc ba sëñ Mamour Diarra wax nañ ci jamono yooyu la la la nelaw waaye muy ñu ko sax mu fekkee denc man coono yooyu yëpp dara li ko teg du dara lu may li mat xi ladi anhu l madihu qasir xusóor yi xalal suñ doom ma ko mooy sama kër yi ma taxawoon yëpp si ne daanoon maanaam kër yëpp jant la Touba boobu dafa mujjoon fu ñu denc ay néew rek nag kenn xusóori xalaat wal ahlu an ni tafarraqat mbooleem sama waa kër yi teqalikoo na mag ñoom ñoom ñoom njaboot gi itam ñu ngi si bàyyi woon ñu teqal leen mag ñi kenn ku ne ñu dóor la fenn gis nga borom daaru bi mu bàyyi woon njaboot gi te moo ko wax lu bare bari sëñ seet wax sëñ xalil ne ko at moo am na ci at moo xam ne ci mu sàq la fanaan ak njaboot bi ngir tumuranke fuñ ne borom daaru itam boo mënta nekk fenn gis nga ba mu jóge maa fële ci jolof dañ ko wax ne ko faaw nga jóge ba nawet ba daanu la fa jógee ñu ñëwee Mbàkke ñu ñu ñu ñu mënu faa ne mu jóge fa dem guy Ngora ginnaaw ba ñu jëlee ko suuf suuf suuf bawal ci boobu ndax booba jëwriñ ay jëwriñam ñoom moom borom daaru jëwriñi daara ji ñoo jàppante sàmm sa sa nekkoon foofu tubaab yi atté ko ne ko yow yaa tooñ tëj jëwriñ yëpp ne ko génn suuf si itam suuf si yëpp da nga koy génn mu génn fa di wër ci dëkk bi fu ne fu ne mu dem masalan coono yooyu itam yooyu di dugg ci coono Sëñ Tuubaa rek mooy wala ahlu anni tafaraqa li madhi alladi anhu lmadihu qasir maanaam jàpp gi ma jàpp ci yoonte rek di ko di ko te te boolewuma ko lenn di ko tagg dara dara wax itam ne man amdaxuhu bi nazmi bi nasri wa nizaami maa dumtu qadiran ala alkalaami li fekk maa ngi wax benn baat di ko tagg mu yoonte bi ci weesa rek waaye lépp at mi ko séddoon ñaari xaaj salaatu sitta bi madhi sitta taatihi batta maa tisaay maa tisaay noonu la ko toppoon gis nga ni ma ko waxee du bare bari mooy waxtu wi tam yitteem moo doon siyaare ji yonte bi alayhi salaam loolu wax na ci wax yoo xam ni yu bare bare bare la bu mujj moom Sëñ Tuubaa ci baaxam mu jàpp ne ñàkk gi ñàkk mën a siyaare ji yonte bi dégg nga am ñekku sit su nekk ci moom su tax yàlla nattoo ko loolu li mu wax yaa waq ni aydi ala ziyaara mujj sikk sa gën màgg ba mu jàpp mu jàpp ne ñëkku daal bàkkaar bu rëy boo xam ne def naa ko bu tax yàlla nattoo ma moom mënuma ko siyaara ji mooy li mu wax yaqu ni aybi an ziyaara ak wa huwa alladi iqa jismi an ziyaaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaar waaye nag sama xol bi ak sama làmm ñoom waxtu na ñu ngi koy siyaara ji moom jëmm ji kay lañ tënk bu mënta dem waaye xol beeg waxtu bi waxtu na ñu ngi dem ko dikko loolu itam gis nga da ko jéggulu yàlla ci moom ay yoon lu bare bari ci biir xasida li wax ne gafaaru ligfir dunubi wafku kan kabali bi man alayya li tarki zawrahu aaru maanaam ñàkk gi ma ko ñàkk siyaare mujj na doon gàcce ci moom maanaam gàcce bu mag boo xam ne da mujj di ko jéggalu yàlla suñu moom tabaaraka taala foofu la la la la la àgg ba ni ko yàlla defale nag ci jamono yi li sëñ Basiru wax mille trois cent onze ci atum ay sasin ca koor ga sëñ Basiru nee na sëñ Hamsatu Jaxate wax na ko ne ca koor googee ca la gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam gis boo xam ne ko bokkut ak ki nelaw maanaam gisu jaxaran waaye waraa ak sitrin shaffaaf maanaam am na lu mel ne rideau ci misaal bu dox diggante ak moom mu ngi koy séen waaye gis ba dese na leerut lool lool keroog ba muy génn di wujji tubaab yi keroog sëñ Basiir nee na ca la ko gis-gis boo xam ni dara doxut diggante ak moom fekk ba mu ko njëkkee gis yonte bi daa ànd ak kii gars yi loolu sëñ Blaat moo ko daan nettali sëñ bi wax yonte bi ne ko gars ñi ni ñu la jege nii ni ñu nekk sawet nii loolu laa bëgg a foofu laa bëgg a noonu laa bëgg a bokk ci ñoom la bëgg maanaam ba bëgg a jege ba gën a jege gaañu sax na yonte bi ne ko loolu de daa am njëg maanaam du du ko jug rek mën a mën a àgg mën a àgg moom moom moom moom bu la neexee itam waxanteeg moom loolu moo moo jur yoonu géej coono yi mu daj yëpp loolu ko waral ngir gis nga waxuma la maanaam ci mujj waaye bi bi nga xamee ne jë jugee na ci géej gi ba dem murtari foofee lañ daal di tàmbalee gis suñ tubaab àgg ci waxtu wu ne muy jandoog yonente bi maanaam ci bi mu nekkee murtani boobu lañ tàmbalee gis maanaam ci moom la xamuñu kañ la tàmbale loolu kenn ko kenn du ko jéem a sax tax dit waaye murtani ba mu fa nekkee booba bokk na ci li ci firnde mooy ahmad wuld budd ahmad wuld budd maanaam sëriñu tijaan la bu mag fa ci murtani mooy maam yi cheikh bi nekk kii nabar ya cheikh ba moom dafa wax sëñ ne ko dama laa bëgg maanaam nga yóbbante la ca yónnante bi alayhi salaam ab leetar nga waxal ma ko te indil ma tontu li sëñ bi ne ko ne ko lu mën a nekk la ànd ceegoo mu bindu leetar jox ko sëñ bi waxal ko ko yónnante bi ba pare itam waxaat ko ne ko tontu bii ma la tontu yónnante bi may saa mooy bind mu tontu nga xam ne Ahmadu wul bu ca la jógee faatu xaala ko daal di jàpp boo xam ne ca la jógee ca la jógee faatu te loolu ahmadul bu def na ko ñaaran dana ko itam ni ma la ko defee ci yonent bi laa bëgg nga defal ma ko itam sama sëriñ ba si amu tijaan yi mooy dama lay wax wax nga waxal ma ko te in laat ma tontu loo xam ne day bàyyi ko ca làmmiñam sëñ bi itam loolu la ko defee ne ko ne ko ne bi mu koy wax tontu dana ko tontu lii mooy bind moom mooy wax moom si amu tijaan yi mooy bind foofee nag maanaam loolu mooy li yéemu maanaam mujj tey ku bëgg a yónni lettre ci yonent bi da nga ñëw ne ko yóbbu yóbbu waxal nga ñëw waxal la ko loolu mooy li yéemu sëñ bi moo tax yonte bi kaana laa yaxibu anhu Mustafa alayhi salaatu wasalaam yonte bi dawut dawut jóg fi moom waxtu ne mi ngi jànd ak moom loolu moo man li ma gën a li gën a yëm ci suñu Tuubaa kenn ku ne ak na la yëm suñu waaye li gën a yëm suñu Tuubaa mooy waxtu ne mu jànd ak yonte bi loo ko wax mu ne ma laaj ko ko alayhi salaatu wasalaam yal na yàlla taas ci barkam yal na yàlla defal tawfeex yi lu bokk ci teel bi yam gërëm seen teel bi ci daraja suñu Tuubaa ma ne la guddal na xam naa kon dañuy daal di def ñaan te dem nag àggale guddi gi ca penc mi foofu lañuy foofu lañuy koy kii foofu lañ koy màggale waaye nag xam naa daal guddi gu am solo la yal na yàlla defal na tawfeex nu bokk ci li ci ëpp def cër ci daraja Sëriñ Tuubaa auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim